يجعل له عوجا أنزله هدى للمتقين وعبرة للمتعظين فأحيا به القلوب وأصلح به الأعمال وذكر به من الغفلة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فرضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعظ الناس بهذا القرآن بهذا القرآن الذي جعله الله نورا وهداية فلا أشفى لمرض القلوب من القرآن ولا شيء أقوم لأحوال العباد من القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بسورة قاف والقرآن المجيد كثيرا كما رواه إمام مسلم وغيره لأنه سورة عظيمة ذكر الله ذكر الله تعالى فيها المبدأ والمعاد وإنكار الكفرة للبعث وحال الأمم السابقة وسكرات الموت وخلق السماء والأرض وما فيهما من نعم وأهوال يوم القيامة وغفلة الناس عنها فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعملوا لهذا اليوم واستعدوا له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ginnaaw bu nu sante yàlla subhanahu wa taala ñu ngi julli ci sunu yonant muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko sant moom yàlla mi wàccee ci jaamam bi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alquran mu nekk téere boo xamante ni téere bu jubla téere njubla moo ko wàccee mu nekk njub ñeel ñi ragal yàlla yàlla nan ci yàlla boole waaye mu nekk waaraate ñeel képp ku bëgg dellu ci yàlla subhaanahu wa taala ci alquran moomee yàlla dundal ci ay xol defaral defal ci jëfi jaami waaye tamit mu nekk luy fàttali ñeel képp ku sàggan di seede na amul kenn ku nuy jaamu ci dëgg jaamu ga di ñu jural njëriñ ñàkk jaamu ga di ñu jural lor ku yàlla di seede ne moo yónni ndawam lu jubla muhammad ibni abdillah salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh di seede ne yàlla moo ko yónni jaamub yàlla la ndawab yàlla la tànneefu yàlla la yàlla moo ko yónni jox ko njub jox ko diinay dëgg ngir mu feeñalal ko doomi aadama yi même loolee su naqaree yal na yàlla gërëm ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi ak taabiin ak képp koo xamante ne yaa ngi jéem a topp njub li ñu nekkoon ci bis penc jot ginnaaw loolu mbokki julliti sunu yonent sallallahu alayhi wa sallama nekkoon di waar nit ñi ak di leen xupp ci alquran bii nga xamante ne yàlla moo ko wàccee mu nekk téereg njub nekk téereg leer ba loolu moo tax fala asfa li maradi alqulubi min alquran amul lu gën a mën a saafara li gën a mën a faj feebari xol yi ak feebari jëmm lu tolloog alquran alkarim wala shay'a aqwamu li axwaali alibadi min alquran amul lenn lu mën a jubbanti mbiru jaami defar seenug dundiin yéwénal seen aduna baaxal seen allaaxira lu tolloog alquraanil karim moo tax sunu borom yàlla subhaanahu wa taala wax ci alquraanil karim inna yahdi lillati hiya aqwam mu ne téere bii di alqur'aan yahdi day gindi jaami lillati hiya aqwam teg leen ca la leen ca gën a rafet teg leen ca la gën a jaar yoon yàlla na yàlla defaree sunuy mbir ci alquraanil karim yonent bi sallallahu wa alihi wa woon na lool ci kaw ci bisu ajjuma di xutbaal saxaaba lu aju ci saar wii di suuratu qaaf wal quraanil majid lu bëri lool comme ni ko imaam muslim nettalee فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بسورة قاف والقرآن المجيد كثيرا من لك ورل لأنها سورة عظيمة ساره مجل لول ليون أك مجايم مودي يلا سبحانه وتعالى نتلنا تساروي تنبلك جامي أك مجو جامي نتلنا تي weddi gi yéeféer yi weddi ne dekki maanaa amut nettali na ci xaalul umami saabiqa nit yi fi jiitu woon naka la ñu meloon ak seeni yonent ak weddi gi ñu weddi woon allaaxira ak loole lan la leen jural ci ay jafe-jafe sunu borom yàlla subhaanahu wa taala nettali na ci bind gi mu bind asamaan ak suuf nettali na ci xewal yi mu indil jaami fii ci aduna te xewal yooyu yëpp war a nekk ay tegtal yu ñu war a jaare ngir xam sunu borom yàlla subhanahu wa taala ak sant ko di ko bàkk yàlla subhanahu wa taala nettali dana ci saaru yi tamit li ñuy tuddee sakaraatul mawt lii di eh, maanaam wextanuk dee wa ahwaali yawmi alqiyaama nettali na ci maanaa tiisu bisu yawmu alqiyaama ak jafe-jafe ya nekk wa gaflatu nnaasi anha ak sàggane gi ko jaami sàggane kon mbokki jullit yi nanu dollee ragal yàlla bu baax a baax su ko defee ñu góorgóorlu di jëf di préparer bis boobee sunu borom yàlla muy wax ci alquranil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون من أين نجم يلا اتقوا الله حق تقاته دولل الرجل يلا دقي دقي رجل ولا تموتن نقل نقل بولن ديمك إلا وأنتم مسلمون لدل نوي جبل نجين تسنو برم يلا سبحانه وتعالى أكون ساروي ينتبه بري وانا لول ديكو خطبه ba am sax ñu wax ci saxaabatul kiram ñenn ci ñoom saar wi ñu ngi ko mokkalee ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw mimbaram kon loolu du benn du ñaar du ñett waaye ay yoon yu bari la ndax li saar wi làmboo ci ay njàngale li saar wi làmboo ci gu li saar wi làmboo ci defaraat mbiru jaani li saar wi làmboo ngir fàttali ki fa woon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 mu ne gaaya de yéemu nanu jaaxle nanu jaaxleg yéemu ak jaaxleg weddi bi leen xuppikat bi dikkee bokk ci ñoom xamal leen ne dekki lii am la fa qaala alkaafiruuna haada shay'un ajib yéefari ne kat lii de lu yéeme la mënta أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ndax sunu demee ba dee suuf lekk ñu ñu mujj nekk suuf ndax dañuy dekkiwaat ñu ne loolee dhalika raj'un ba'id loolu daal lu sori xel la loolee lu mënta nekk la sunu borom yàlla subhanahu wa ta'ala fàttali leen xam-xamam ak man-manam ak kàttanam قد علمنا ما تنقص الأرض منهم sunu borom yàlla subhaanahu wa taala mu ne man yàlla xam naa li suuf di wàññi ci ñoom bis bu nekk ki dee ci biñ ko duggalee ci bàmmeelam bis bu nekk ñaata la suuf di lekk ci moom bis bu nekk lan mooy wëlbatiku ci yaramam sunu borom yàlla subhaanahu wa taala mu ne loolu xam nañ ko te decc nañ ko wa indana kitaabun xafiid mu ne te loolu mu ngi ci téere boo xamante ne bu ñu bind la bu ñu wattu la bal kaddabu bilxaqi lamma jaahum li am ba am moo di dañoo weddi dëgg bi leen dëgg dikkee fa hum fi amrin marij moo tax ñu nekk ci sikki sàkka nekk ci déngi déngi nekk ci xel ñaar ci lii ñu di woo ca ñu war koo gëm yàlla tàmbali di leen nettali man-manam ak kattanam nga xamante ne ci la ñu war a man-manu borom bi subhaanahu wa taala ba di ci amee tegtalu amug yàlla subhaanahu wa taala afalam yanzuruu ila alsamaai fawqahum kayfa banaynaha وزيناها وما لها من فروج yàlla mu ne xanaa xooluñu asamaan si fettee leen kaw naka lan ko tabaxee ñun yàlla taaral ko wama laha min furuj doo xool ba gis fu yàqu wala xool fu ñu war a defaraat wala xool fu ñu war a soppiwaat yàlla mu ne loolu lépp a ci kon ku mën a defar lu màggee nii ak at yim fi nekk yépp doomu aadama dem ba dellu nekk suuf ñu dekkilaat ko xam ngeen na loolee lu ko yomb lool wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij yàlla mu ne suuf si man maa ko tàllal roof ci ay doj saxalal leen ci mboolem gàncax woo xamante ne wu taaru mu ne lii lépp su ngeen ma defal leen ko jubluwaay wi lenn la tabsiratan wa dikra li kulli abdin munib dafa ñëw di nekk fàttali ñëw nekk loo xamante ne ak waar la li kulli abdin munib ñeel bépp jaam boo xamante ne day dellu ci yàlla subhanahu wa taala yàlla na nu yàlla boole ci jaam yi tuub di dellu ci moom yàlla subhaanahu wa taala wa nazzalna min as-samaa'i maa'an mubaaraka fa anbatna bihi jannatin wa habba al-hasiid yàlla mu ne ñoo wàccee ci asamaan si ndox mu barkeel saxal ci ndox moomee jannaatin ay tool wa xabbal xasiid ak lii di tepp wannaxla baasiqaatin lahaa tal'un nadiid bokk na ci li ñu saxalee ci ndox moomee muy garabi tàndarma yi noonee ñu guddee ba pare mën a meññi yàlla mu ne loolu lépp mu ngi bokk ci ndox mi ma wàccee mu bowoo ci asamaan si ñëw ci fi nga xamante ne moom mooy suuf si waaye lii yëpp lan moo tax yàlla defal ñu ko yéen mbokk yu baax yi rizqan lil ibaadi wa axyayna bihi baldatan mayta mu ne lii lépp man yàlla maa ko def mu nekk wërsëg ñeel jaam yi wa axyayna bihi ma dundalee ci ndox moomu suuf soo xamante ne dafa demoon ba dee yàlla mu ne nii may tawale suuf si sax génn mu ne kadalika alxuruj nii tamit laa leen di dekkilee keroog yowmul qiyaama kadabat qablahum qawmu nuuxin wa asxaabu rasi wa samuud yàlla di ñu xamal ne weddi gi gaa yooyu weddi dekk jiitu woon ci waaye am na ñeneen ñu leen ci jiitu woon bokk na ci qawmu nuux ak asxaabu ras ak waa samuud ak qawmu aad ak ñi nga xamante na ñooy firawn ak mbokki firawna ya ak mbokki luut ya wa asxaabul aykati wa qawmu tubba ñii ñëpp ay nit yi fi jaaroon la ay génération yi fi jaaroon la yàlla yónni woon ci ay ñoom yónni woon ci ñoom ay yonent ñu maanaa bañal seeni ay yonent am fu borom bi yàlla subhaanahu wa taala jaar ñoom kullun kaddaba rusula fa xaqa waid yàlla mu ne xeet yi yépp dañoo weddi woon seen yonent moo tax wa xaqa waid tëkkug yàlla nekk loo xamante ne lu jaadu la seen kaw afayina bilxalqi alawal bal hum fi labsin min xalqin jadid borom bi subhanahu wa taala mu ne andax dina nekk lu jafe ci man mbir dem ba yàqu ma defaraat ko moom mi nga xamante ne moo ñu sàkkoon ba ñu nekkul dara mbokk xam ngeen ne lu nekkul dara nga xëy amal ko loolee moo gën a jafe foofu ci déggiinu doomu aadama ak lu demoon ba yàqu ñu war ko réparé waat dajalawaat ko xam ngeen ne loolu moo gën a eh, maanaa yomb la jiitu te loolu lépp moom moo yem ci borom bi subhaanahu wa yàlla mu ne bal am ba am moo di hum yéeféeri de fii labisin min xalqin jadid ñoom de ñu ngi ci sikki sàkka ci ne dekki moom loolee mënta nekk walaqad xalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh yàlla mu ne nun yàlla ñoo sàkk doomu aadama te ñoo xam lay jax-jaxe cib xolam wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid te nun ñoo ko gën a jege ci sunu xam-xam lii di buumu xolam moom jaan bi id yatalaqa almutalaqiyaani an alyamini wa an ishtimaali qaid yàlla mu ne fàttalikul jamono yi ñaari malaa yi nekk ak yow di ànd ak yow kenn ki féttee la sa wetu ndeyjoor kenn ki féttee la sa wetu càmmuñ amul lenn looy wax lu dul ne bind nan ko maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul benn kàddu guy génn ci amul lenn looy wax lu dul ne malaaka yooyee bind nañ ko tënk nañ ko denc nañ ko wa jaat sakratul mawti bil haqq yàlla mu ne sukuraata ngi noonu di wextanug dee ñëw na ci dëgg zalika ma kunta minhu taxiid loolu mooy li nga doon daw yow nit ki loolu mooy li nga doon moytu loolu mooy li nga doon sori waaye xëy na ne jëmm taxaw ci lii nga xamante ne moom mooy sa kanam wa nufixa fi suur yàlla mu ne ñu wal ci buftu ga zalika yawmul waid keroog moom mooy bésuk rendez-vous mooy bis bu ñuy dajeek sunu borom yàlla su jaam yi dekkee génn seeni bàmmeel wa jaat kullu nafsin maaha saa'iqu wa shahid li gën a raglu te gën doy moo di jaam bi su génnee ci bàmmeelam ñaari malaaka ñoo koy dar kenn ki jiitu moom mooy saa'iq ba keneen ki mooy shahid mooy ki yore woon la mu jotoon a jëf ci aduna ñoom ñaar ñu ànd war a wuyu ji borom bi subhaanahu wa taala sunu borom yàlla subhaanahu wa taala mu ne laqad kunta fi gaflatin min haada yow nit gi de sàggane woon nga dee ak li ci aju فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تين وني la nga xamante ne mooy kiiraay ga nga jàkkaarloog yeneeni mbir mu ne fa basaruka al yawma xadid tey de sa gët yi jàkkaarloo naag li nga xamante ne moom mooy wàllu alaxira wa qaala qarinuhu hada ma ladayya atid malaaka mi àndoon ak moom yore ay jëfam nga xamante ne loolu liggéeyam la su ñëwee ba taxaw ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala mu ne yow yàlla haada maa ladayya atid lii de mooy li ma dajale woon ci jëfam lii de mooy li ma wattu woon ci jëfam jëfam a ngi nii teewal naa ko dara manke wu ci foofu sunu borom yàlla subhaanahu wa taala ne alqiya fi jahannama kulla kaffaarin anid sandi safara bépp weddaakoon woo xamante ne wu dëgër bopp la mannaain lil xayri mu'tadin murib doon xañ nit waaye nekkoon ku daan jalgati waaye ku daan sikk sàkk ci màggaayu yàlla subhanahu wa taala alladi jaala ma allahi ilahan axar mooy ki nga xamante ne moo doon wutal yàlla morom mooy ki doon wutal yàlla ndend mooy ki doon wutal yàlla li nga xamante ne moom mooy lan ak naataango yàlla mu ne ñooñee fa alqiyaahu fi ladabi shadid nañ leen sànni ci mbugal mu tar qaala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kaana fi dalalin baid su yàlla ne nañu jël ñu weddi ñi jëme leen safara foofee nag ak xuloo dina fa am diggante ñi réeroon ak ña leen bokkoon na ca ñu réeralaate ka ci jiitu moom mooy iblis ak njabootam keroog wa qaala qarinuhu iblis seytaane bi nekkoon ak nit ki doon ko yàqal ne rabbana yow sunu borom ma atgaytuhu kii de réeraluma ko woon bewlawuma ko woon walakin kaana fi dalalin baid moom ci réer gu sori la nekkoon sunu borom yàlla subhanahu tontu leen ne قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد yàlla leen laa taxtasimu ladayya bu leen xuloo bu leen fi xuloo wa qad qaddamtu ilaykum bil waid bi ngeen nekkee ci àdduna yónni woon naa sama yonent jox leen ay téere ñu indil leen ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد yàlla mu ne lu ma xas ba wax du soppiku te man yàlla nekkuma di tooñ samay jaam yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid mooy bis bi yàlla di wax ak safara ne ko hal imtalati ndax fees nga safara nee ko hal min mazid ndax ndolleen amul wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id yàlla mu ne su ko defee ñu jegaleel aljanna ñeel ñi ragaloon yàlla yàlla nañ ci yàlla boole hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz yàlla mu ne lii mooy li ñu digoon bépp jaam bu doon bëril di tuub di dellu ci yàlla nekkoon koo xamante ne ku wattu la kooku moom mooy kan man xashiya arrahmana bilxaybi wa jaa bi qalbin munib mooy ki ragaloon yàlla ci kumpa waaye ñëw keroog yawmul qiyaama indaale xol woo xamante ne wu mucc ayib la wuy dellu ci yàlla la su ko defee ñu wax leen udxuluha bi salaam dugg leen aljanna ci jàmm zalika yawmul xuluud lii de moom mooy bisub sax ci aljanna yàlla nanu yàlla boole ci ñu ñuy wax kàddu yi lahum ma yashaauna fiha am ngeen ci aljanna lépp lu leen soob wala dayna mazid waaye am ngeen fa weneen ndollin woo xamante ne moo gën a rëy biir aljanna moom mooy gis yàlla subhaanahu wa taala yàlla nanu ko yàlla wërsëgal وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص yàlla di wax ak ñu weddi ñi mu ne nañu fàttaliku ne am na ñi leen fi jiitu woon ci ay doomu aadama ñooñu ñoo leen ëppoon kattan fuuf ëpp leen doole fuuf nekk ñoo xamante ne ashaddu minhum batsa ñoo leen ëpp doole fa naqabu fil bilad fu nekk dem nañ fa tukki nañu fu nekk gis nañu lu nekk kaw suuf yàlla mu ne hal min maxiis inna fi dalika la dikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid yàlla mu ne nekk na ci aaya yu jiitu yi la dikra ak fàttali ñeel ki nga xamante ne am na xol ñeel ki nga xamante ne ay dégg-déggam mu ngi ciy jëriñu waaye fekk mu dund di teew di dégg li nga xamante ne mooy alquran wa laqad xalaqna alsamawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyaam yàlla mu ne ca dëgg-dëgg sàkk nañu asamaan teg suuf si ci juróom benn fan wa ma massana min luguub te bi ma ko sàkkee ba nokki noppi sonnuma waaye tamit yuqatuma comme loolee nga xamante ne moom la yahud yu ba nuy wax fasbir ala ma yaquluun kon yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam muñal ci li gaay di wax ak weddi giñ lay weddi muñal waaye tamit yow jullit bi muñal ci li noon yi di wax وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب del saxoo say julli juróom maanaam del sabbal sa borom njëkk jant bi di fenk waaye tamit njëkk jant bi di lan di sox wa min al-layli fasabbihuhu wa adbaara as-sujud guddi gi tamit dee ko ci sabbal guddi gi dee ci julli wa adbaara sujuud saa yoo jullee ba noppi tamit del bëri di sabbal yàlla ak diko ko bàkk ak di ko kañ wastami yawma yunaadi almunaadi min makaanin qariib yàlla mu ne déglul bis nga xamante ne ab wootekat dina woote ci bërëb bu jege yawma yasma'uuna as bil haqq mooy bis bi nit ñi di dégg ko ji dëgg moom mooy wal gi malaaka gi di wal ci buftu ga mu di eh, maanaam malaaka boobee ñu dénk li yàlla mu ne su kerogee nag zalika mooy bis bi jaami di génn ci seeni bàmmeel war a wuyu ji borom bi subhanahu wa taala inna nahnu nuxyi wa numiitu wa ilayna almasir yàlla mu ne ñun ñooy dundalaate te ñun ñooy reyaate wa ilayna almasir te ci man ngeen di dellu muy borom bi subhanahu wa taala yawma tashaqqaqu al-ardu anhum siraa bis bi suuf di xotteeku kaw jaami xotteeku gaaw lool dalika xasrun alayna yasiir bis boobee mooy bisub dekki ga mooy bisub pank ga war a nag taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala naxnu aclamu bima yaquuluun ñun yàlla xam nañu li noon yi di wax xam nañu li yéeféri di wax xam nañu ñi bañ lislaam la ñuy wax di ko jëme ci lislaam waaye nag yow julit bi yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallama li la war rek mooy woote waaye mënoo leen force mënoo leen xëcc indi leen ci njub wa ma anta alayhim bi jabbaar mënoo leen force indi leen ci njub kon nag fa zakkir bil qur'ani waay waay del fàttali alquran gi man waajoo xamante ne yaxaafu waid day ragal maanaa dajag yàlla subhanahu wa taala di fa am ay jafe-jafe yàlla nanu yàlla déggloo alquranil karim yàlla nanu yàlla wërsëgal barke yi nekk ci alquranil karim ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ci turam yu màgg yi ak melokaanam yu kawe yi ak man-manam yi nga xamante ne dara tawu ko koy ñaan moom yàlla mu wërsëgal ñu sunu euh, maanaam mu yërëmal ñu sunu waajur wi nga xamante ne moom moo wàññeeku woon ci semaine bële di al oustaz Youssouf dem yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla xaaree aljanna jàkka ji xam na ko lool su fekkee ne jàkk ji gis ko rek dafa fekk ne feebar ak tëdd moom moo ko lan moom moo ko téye ba ñëwul ci jàkk ji kon jéegu yi mu doon def ci jàkk ji taxawaay yi doon taxaw ci bërëb bi woote gi mu nekke woon yàlla na ko yàlla defal loolu mu nekk yërmande ak barke sëmbërtalal ko li nga fa nga xamante ne fa la nekk yàlla na ko yàlla defal yërmande allahumma agfir lahu warhamhu wa aafihi waafu anhu wa akrim nuzulahu ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب اللهم أصلح شباب الإسلام اللهم ردهم إلى دينك مردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك مردا جميلا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين